mbay n'a pas les oreilles, qui n'a Palmarin. Mbaye Palmarin ndeysaan noonu góore ñaa ñu gën ko xam ci Tony Junior ndeysaan moog Mbaye Diop Palmarin ndeysaan Tony Junior ci demi-finale moo fi daan Dibou Corsagne Mbaye Diop moo fi daan ki nga xamante ne mooy Maurice bu Palmarin ndeysaan kii ànd ak ak manga deme euh, demisol bu jaune bi mu ngi tudd Bala Aruna kuy seetaan CBA combat bu métti boobu Ama Sène bi muy pare chef de l'équipe Nigéria bi mu doon pareel moo taxaw noonu Bala Aruna Bala Aruna siyaar wala Arona ngi noonu ndeysaan champion d'Afrique la moom tamit ndeysaan bala Arona ngi noonu moo bëre woon ak Eumeu bëre bu metti ba fële ca Niger cey bala champion CEDEAO la ancien couloir la léegi aca Tony Junior Mbaye Palmarin demi final final baa ngi noonu poids léger final poids léger Tony Junior ak Mbaye Palmarin Tony Junior Mbaye Palmarin final poids léger final poids lourd war a dox ci diggante Serigne Ndiaye ak ki nga xamante ne mooy Doudou Sané ndeysaan jëlante nañu ñoom ñaar Tony Junior Tony Junior Mbaye Palmarin Mbaye Diop Palmarin Tony Junior moo fi daan Dibokor sañ ca demi ba Mbaye Diop daan fi Maurice aca jël na ko bal ca lox caw Tony Junior nga yóotu waaye jàppul roofoo nañu ñoom ñaar solante dëbb na ko naax arbitre arbitre arbitre Tony Junior Mbaye Diop final poids léger Mbaye Diop Tony Junior jël noppal nañ ko Tony génnaat na ca attention Tony Junior Tony Junior daan na Mbaye Diop palmarin en tant que daanoo ko ba yegg ci kawam bul yaakaar ni daan nga ko Tony Junior na Tony Junior daan na ko waaye blessé na Doudou Sané nga ca moom am na lu mu koy jeex na waaw waaw